Mar. mais Toumani. moo ko mais patron. waaw waaw doom ji Wally Seck la ko tuddee. doom ji ah. mariage may sa dige may sa dige maar. waaw ajib nar nar nga dem ba ca Lamba yàlla jur juróom ñaari jur. ndeysaan yàlla jël dama bi. jël yiw gi jël mën na tëm mën a def lu baax loolu dara ci wax. te mën fecc mën fecc ak Wally Seck daa mën a ne tur wi laay laay Fallou waay man mii daba man mii sa géwël big am big am big am mais mais Baye Wally Seck waay Amady Badiane Amady Badiane mais Badiane waay waay waay ko dara gisee leeto ko dara waaw gisee ko dara gisee leeto ko dara def nga li nga war a def waaw Ramdan ñëpp nag si yow nee nañ kontaan nañ Arma kontaan na Moy si Njaay kontaan na ñëpp kontaan nañ waa li nga ko tuddee bu joli bi doomu yaayu ndey bajaan wala duggee wala duggee si nga indi diir photo du ñu am benn photo ah. Amari

way bañ a way waaye Amady kuubul bi waaye yow lii rafet na di waaw des xaw ma waaye non non des voilà bañ a way Sénégalais kontaan nañ si yow waxal waay waxal waaw jërëjëf soo waxee da ngaa war a wax soo waxul da ngaa war a wax waxal waaw waxal si micro bi waxal waxal nga waxal rek sénégalais yi dañoo bëgg nga wax yëkkati sa kàddu nga wax waxal waxal rek waxal waaw ah, waxal rek lii rek laa leen mënal lii rek laa leen mënal mu wax waaw jërëjëf mbooloo mi jërëjëf mbooloo mi waaw waaw non mbooloo mi jërëjëf ndax li yàgg na nekk sama mbir sama mbir du am yàlla defal na fi yomal sax nekk. mais yàgg naa nekk moo tax tey nga romb fii nga ko def lan nga dund ak Wally Seck ba tax tey def ko dong tuddee ko. parce que cër bi moo ko moom def na ma lu mu deful kenn teg ma fu mu tegul kenn xoolee mu bët mu xoolee mu si ay rafet mu amaatul dugg ko sama la ko tudd loolu bu nekkat Wally dee. ci yàlla aywa day joxe. bu góor day amaatul loolu ma defaat ko Wally mu nekk Wally dee. jooy sax laa bëgg jooy jooy.

waaye tax na ba ñeew ma kenn kuy dox ci kaw suuf kon donc sant yàlla nee naa la bu ma amaatoon bu doom bu góor moom la wàllu góor wàllu un million deux millions waaw ah, mais loolu loolu loolu ay wax ay wax ay ci wax loolu garaawul ay détails la. non non non non favori non non non non toujours ma teg la teg ma teg la waa teg waa Ramadan ma bëggee la mais dafa di ci jël benn gërëm comme ni ñu commencé di ko doxee te ba ñuy tàmbalee dafa mën a mën wax waaye dama ne la su ma fukki doom bi moo ko moom. fukki doom yu góor bu ma ko bi moo ko mën. disque bi dafa ànd ak Bébé ndax Bébé bi nga xamante ne moom mooy coowal disque d'or ba turandoo dem na nga xam ne moom moo di France euh, album bi war a génn incha allah le 6 juin bi ñu dëgmal hasard amul sama ko ñu jël. macha allah yal na ko yàlla def ci kàttan seen na yàlla def lépp lépp àndandoo daal ci kàttan seen rajo te donc yàlla da dina am ci kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu dee discours d'or man tuuti ma discours d'or plateau laa yor ak yeneen ak yeneen i yeneen parce que waa ji mbir mi dayoo weesu ko day jooy de day jooy de su wax si wàll day jooy. non non non non jooy naa ba pare. waaw jooy naa ba pare doo ko ñëwaat doo ko ñëwaat na ba pare dootuma jooyaat. incha allahu rabi dina ñëw ci kàttum say dàmbal sax. mais disque d'or disque d'or bi coow li mu àndal dafa bari quand même ñëpp a ngi wax jamono ji ci disque d'or bi gis nañu ñi nga xamante ni sax wax nañu ni waaye Seck amul capacité ci disque d'or ci Sénégal. waaw waa waa waa lu mu laal biir waaye lu mu laal bëgg mais amady ñu ngi waaj a ñu ngi waaj a indi disque d'or pour ngénte ko yow nga ngénte waali tuddee waali loolu. accompagnement la gunge la nee naa lépp lépp ci njëlbeen gi la ba léegi damay gunge rek waaw lii la waaw. ba léegi da ngay gunge. waaw d'accord mais li nga xamante ne ñu koy wax tamit di wax ba ngoon loolu tamit li nga xamante ne ñu bëree bëree bëri ñu koy wax nga nga nekk donc Wally wax ci loolu. est-ce que saa bu ñu jënd disque d'or bàyyi waxu bor ak bor iñaam loolu baaxul. loolu bu ñëw day ñëw naturellement ak ni mu war a ñëw incha allah dina ñëw ni mu war a ñëw ak naturellement liggéey rek am solo sama waa ji mi ngi liggéey mi ngi ko teg fi mu war a def. boo ko ñaan ban ko mën a wax parce que ay détails wala ay dégg man mën naa wax li nga waxal ma loolu waxu soxor loolu waxu soxor ndax dañ ko ne lii baa ngi jooy loolu laa wax man mën naa wax kenn xam nga loo wax dañuy defe ne dinañ man man teg mu ko wax dañoo soxor bon iñaan seen xol yi baaxul bu bon lañu macha allah mi ngi ci li non non def li mu war a def liggéey na indi na liggéey def li mu war a def moom li mu mën a def ci def vraiment dañ ci des ñu ngi ñu ngi ci voie bi gis nga lu bëgg dem Fra ak seede yi fa nekkoon dèjà di jotoon a génn comme comme avant jeex na loolu la rek man félicité félicité ko. mais jeex na jeex na doom ji day jooy doomu ndeyaan mi ngi jooy. doomu ndeyaan mi ngi jooy doom jee ngi jooy. doom jee ngi jooy doom jee ngi jooy. waaw doom jee ngi jooy waaw. léegi waaw léegi dama bëgg a gërëm sama sama xarit sama am di jàmm gërëm ba demee. yow la ñuy gërëm